deuxième édition journée sociale bu ànd defar ëllëg amal nañ ko fii si Mbàkke Abdou Lahad Faye ma nekk ca booba dajale fi mbooloo mu takku toll si ñaari junni jigéen ñii nag si seen biir am na si juróomi téeméer yoo xamante ni dañ leen doon jébbal lijaasa bi firndeel ni seen i tàggat si wàllu transformation des produits locaux yemb na. tey jii on on on on procédera ak une remise de diplôme de 500 femmes yoo xam ne jot na ils ont déjà elles ont déjà subi une formation en céréales en transformation fruits et en couture, en teinture en élevage et en gestion financière. Donc loolu si on le peut aujourd'hui, c'est grâce au président Macky Sall. Donc nous ne pouvons que remercier le président Macky Sall, son excellence le président Macky Sall, à qui nous soutenons, à qui nous, nous, nous, nous renouvelons notre engagement, notre détermination. Nous avons une hôte de marque. Moi, le directeur PME. xam ne tey ji jigéen ñi leen tàggat yëpp suñu bëggee ñu jariñoo ko liggéey ko jaay ko commercialisé ko ci biir supermarché euh, grande surface ak extérieur moom moo koy moo leen ci tàggat accordé leen ko mu ñëw wax ak mbooloo mi jox leen wax leen ne tamit dina leen ci jàppale dina fi ñëwaat indi ay formation pour jàppale leen ci loolu kon loolu dañuy sant di ko gërëm kon ñu ñaan yàlla suñu borom mu jotale lépp mu mot mi man lépp am lépp di joxe lépp mu may ko ba yéen a jënd yéen fii naal yi naal fii euh, abise naal ko tamit pour jàppale ko ay financement ñi jotoon forum bi nekk 3 yàlla motali yamuñu foofu de jébbal na leen tamit euh, tonage bu takku si ceeb ngir seen sukkar koor loolee jublu si wàll social ADE di kuréel gu mag goo xamante ni day yëngu si politique ak développement ndaw lii di Abdou Lahad Faye taxawal ko fii nag mu ko doon amalee jàpp nañu ni mbooloo mu takku teew na boole kook ay kilifa ak autorité rawat na jeunesse bi ak magam bii di Serigne Mbacké Faye kàddu nag jib na fa tukkee ko si jigéen ñi nga xamante ni ñoo ko investir ngir nag mu teewal leen ca pencu ndaw réew ma jàpp nañu ni nag danoo war a ñam ndaw yi ndax suma kàddu kilifa la jóge sama làmmiñu kilifa la jóge di sëñ Mbacke Faye ndax suma mag la suma kilifa la te ñun Baye Fall gi ñu bokk li ñu xam mooy kilifa gi mag jiitu rakk topp ci li mu wax jàppewu ko bëgg-bëgg ndigal la ma ci jox te bu soobee yàlla dinaa fas yéene jëfee ndigal googu rawet nag ndax bu ne fecc ma dafa neex dañ naan euh, yaay jaay jàpp te ay kon te jii ñii ñooy samay mbooloo ñii ñooy sama doole ñoo yéen a teew yéen a témoin ñu tabb ma bëgg ma doon bokk ci participer élection yi dinaa ci demal nag ak engagement ak détermination bu mat sëkk fulla ak jom mat sëkk heure bu ma président Macky Sall wóoloo ba def ma ci listam fii ndax nag jot na dafa jot ndaw ñi ndaw ñi jot jot seen wàll ci mbir mi président Macky Sall 2019 Abdou Lahad fay di ndaw loo xamante ni mu ngi si ginnaaw président mag Sall di koy liggéeyal loolu nag firnde wu na si mobilisation bu mag bi mu amal si bi muy amal journée bu mag bi